voilà mbokku téléspectateurs yi toujours ci reportage bi leen defal maanaam ci coow li nga xam ne moom moo lëmbee jamono ñu ngi fii ci marché Gueule Tapée ñu ñëw nag fekk fi benn soxna mu toog ni ci machine am soxna si nga présenté wu. asalaamaaleykum maa leen nuyu yéen ñëpp maa ngi leen nuyu yéen ñëpp daal. nekk sa tur ak sa sant. noo tudd. maa ngi tudd Fandaw Mhm. waaw couturière marché Gueule Tapée. waaw centre commercial Seydina Limamou. voilà euh, soxna Fatou dañu gis jamono bi coow lu rëy am maanaam coow lu ñu di tudd jigéen te yow ngay jigéen maanaam lan nga ñu ciy wax ci diggante coow li am ci diggante Ousmane Sonko ak euh, Adji Sarr. Ah, coow li am si diggante Ousmane sonk ak Adji de vraiment ñu koy métti lu daal. Mhm. en tant que jigéen ak moromam. Mhm. vraiment di si am métti bu métti sax. Mhm. waaw. Mhm. te fi mu toll nii dèjà Adji Sarr suñu mbokk jigéen la. Mhm. te bëgg na aussi am aussi liberté am dem dox soxlaam. comme ni mu ko doon waxee. ñu ñaan yàlla daal yàlla def si affaire bi jàmm pour mu mun a demaat. si ay activité am. maanaam lan ngay maanaam conseil ban appel ngay lancé sa mbokk jigéen ñi xam nga nag dañ nekk ci mois de mars nga xam dañ ko jagleel jigéen ñi maanaam appel bi nga xam yaa ngi lancé yaa ngi koy lancé sa jigéen ñi. sama mbokk jigéen ñi maa ngi leen di lancé daal wax dëgg yàlla mbépp mhm. kuy jigéen na xam fu muy dëgg tànkam ak lu muy wax aussi mhm. comme le cas de Adji war na mën a tax ñu ñëpp ñu fagaru war a xam daal lu ñuy wax ak lu ñuy fu ñuy fu ñuy dëgg suñu tànk daal tout à fait ak ñuy aussi waaw bari dal Adji Sarr ku si nekk di moytu ko daal dëgg la vraiment kenn yéenewu ko aussi très bien yéen ay jaboot ngeen tamit te gis nañ ne xale yi génn nañ ci mbedd mi am ay yàqu-yàqu yu yu bari yuñ def léegi yéen en tant que jaboot lan ngeen di wax aussi xale yi. aussi loolu tamit métti lu nañ ko torop yàq-yàq bi mënoon na ñàkk. Mhm. vraiment mënoon na ñàkk torop mënoon nañ ko yàq ne defee woon neneen. Mhm. te yàq-yàq du si am. dëgg la métti nañu torop. Mhm. vraiment. dëgg la looy tàggatoo. di nuyu ñëpp rek. di gërëm aussi samay mbokk jigéen di leen di sant yéen tamit. merci beaucoup merci. waaw ah, sëñ bi ñu ngi lay dalal eh, ci TMS TV di la laaj tur beeg sant bi. Euh, salaamaaleykum euh, di leen dalal jàmm yéen waa euh, TMS TV man maa ngi tudd Moustapha Mané. alors Moustapha maane gis nga yaa ngi suivre dossier Adji Sarr bi bu baax ak Sonko gis nga barki démb soxna si génn am na lu mu wax ba invité sa waay sa à ce que mu waat bu ko defee mu retiré plainte am yëpp jeex loo xalaat ci loolu. waaw tout d'abord lu ñuy lu ñuy si dëkk bi loo ne dem na ba. de euh, xaw lu deewa sax lay wax donc après ya ya ya il y a des morts il des morts d'hommes donc tout ce qu'on pouvait éviter dès le départ donc après on a suivi Sonko ñu tout le monde s'attendait à ce que Adji Sarr génn pour mu def benn sortie médiatique mais malheureusement bu ñu génnee ñun ñëpp on l'a suivi à la télé donc euh, sa sortie aurait été mieux appréciée si su fekkante ne moom elle a pris ses propres initiatives ñëw wax Sénégalais lii mu dund ko mais lu ñu ko gisee mu génn d'abord ci télé bi moo moo gën a moo ñaawlu ko en fait. moo ñaaw quoi. waaw ok yow tu penses que dafa am ñu nekk ci ginnaawam di ko dicté ginnaaw bon gis nañ ay écouteur gis nañ fa maître El Hadj da nga jàpp ne dafa am ñu koy waxloo muy wax wala. dès le départ dès le départ observateur yëpp ñu ngi si doon wax donc ñëpp xam nañ di complot complot la donc ils en ah, veulent jusqu'à la preuve du contraire yow da nga jàpp ne complot la parce que nit ki ñuy violé yow yàgg nañ ko dégg si dëkk bi donc ki ñuy violé am na lu muy comporté am na lu muy dikkee donc bu ñëw ñëw nit ki boo demee ba ñu naan dañu violé ñu am ay nit ñoo xam ne dañ lay dañ lay dañ lay chapeauter sa ginnaaw pour nga wax donc ça veut dire que a a anguille sous roche. en fait jàppaloo ne peut moom dafa am trac pour wax moo tax ñooñu di ko jàppale parce que moom dem na ba ne su waa ji waatee ne mosuñu séq dara moom mu génne plaintam. no je pense pas déjà déjà nit ki du la def dara nga ne ko kay taxaw nga wat loolu kenn du ko def. donc yow boo demee ba yow bay ban bay ngay naan na yow moom si boppam dégg naa parce nee na day waat si si euh, si si bàmmeelu ndeyam. bi ko jur comme quoi que waaj nañoo taxaw di seetal boppam déjà loolu c'est c'est kii quoi en fait yow c'est un complot en un complot. jàppaloo ne aussi ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko comme dossier bi mu ngi ci yoon war na dem wuy ji yoon aussi setal boppam ginnaaw ba moom soxla na réew mi aussi war na mën a setal boppam. mais Sénégal yëpp loolu la ñu soxla ñëpp dañu bëgg que la vérité éclate saa yu éclaté coow kii nu koy waxtaan encore euh, yuuxut na jib fu ñu ko fogeewul nañ dem procès mhm. waaw nañ dem procès non na ñoom si boppam Sonko si boppam dès le départ il a bu ñu relever immunité parlementaire bi ñu topp procédure ñoom y' a pas c' est un citoyen sénégalais bu ñu ko woowee day dem répondre mais nañ topp nañ respecté procédure bu ñu ko respecté il va pas il va ñaan yàlla dañuy ànd ak am am am kii am dal ak jàmm bàyyi lépp si loxo yëpp comme nit ñi dem nañ ba jóg. dèjà dèjà sax euh, nit ñi dem nañ ba jóg ba di wax ñenn ba yenn kilifa yi jóg di ñaan jekk ak teranga man j'aurais bien aimé que ñu arrêté affaire bi mais comme dem nañ ba soulever ko nañ dem procès waaw ok merci.